آه، بين آية عنجيكي سورة البقرة بين آية عنجيكي سورة البقرة مي آية آه، بتامبلتي وبصر الذين آمنوا مي 24 ب 25 وبصر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من زمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل wa aatu bihi mutashaabiha wa lahum fiha azwaajum mutahharatum wa hum fiha xaalidun aaya bu am solo ni aaya bi bu suñ borom dogalee nga bind ko euh, quarante-sept fois mooy ñeent fukki yoon ak juróom-ñaar boole ko ak euh, ñaar fukki garab yu ñuy lekk ñam bi boole ko ñaar fukki garab yu ñuy lekk ñam bi sangoo ko fukki fan ak ñeent inchaa allahu rabbil alamin suñ borom dana la defal fatxu ci mboolem xeetu wërsëg yi boko defé ren bu fekkee sa yaram takku taqu dafuuto fi ben sobe wala ben luy takal sa yaram bala atma maa del si déwén incha allahu rabbal alamin sa am am dina yokk ba nga yekko benen bi ci dess moy boko bindé mom moom ji di wa bassir alladina amanu wa amilus salihati an lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar kullama ruziqu minha min zamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج fiha وهم فيها قالدون بوكو fiha 15 boo fois mooy fukk yu fukki yoon ak juróom def ko ci sa biir kër maanaam suul ko ci sa biir kër incha allah yàlla dina sàmm njaboot ga te ab dund du fa manqué bu fekkee góor gu bëgg borom borom góor gu bëgg soxna la tamit bu ko dee faral di jàng fukki yoon bët bu set suñ borom subhaanahu wa taala dana ko yombal mën na koo bind bu ko neexee tam mën na ko bind tamit jëfandikoo ko ci wàllu sangu mooy fukki yoon la koy bind mooy aaya bi suñ borom dana ko yombalal soxna su baax te lum ci bëgg dana ko ci fekk lum cee ragal du ko ci fekk. bu dee jigéen gu bëgg borom kër la tamit bu ko jee jàng ñe fukki yoon ak ñeent wala ñu bindal ko ko fukki yoon ak ñeent mu jëfandikoo ko raaya ko di ko raaya ci yaramam ba mat lim booba limu fukki fan ak ñeent yàlla suñ borom dana ko tàggatal ba dana am boroom kër bu baax comme na mu ko bëggee ala kulli xaalin loolu daal lu wér la te fa tabaarakallaahu jarbu nañ ko te jox nañ ko ay nit ñu utiliser ko te gis nañ ci tawféex ala kulli xaalin xam naa ci boobu la ñuy yem danañ ñëwaat ci yeneen yoo xamante ni fa tabarakallah moom yu am solo lay doon incha allah eh, in uridu ila al islaha mastata'tu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa